Momar Ndao ñu ngi lay nuyu. yow yaay porte parole comité suivi force Covid 19 jiite itam ASCOSEN ñu am mbégte mu rëy dalal ci matinalu tay bi alors yéen comité de suivi force Covid 19 da ngeen a nekk euh, jamono yëpp di daje ak euh, yenn jëwriñ yi nga xam ne euh, jotoon nañu jot ay fonds ci résilience Covid 19 bi ñu bëggoon xam justement ndaje yooyu lan la wundu ak itam njeexital li lan lay mën a doon. waaw jërëjëf xam ngeen ne bi mbas mi ñëwee jaaxal réew yëpp jaaxal Sénégal chef de l'État dafa décidé ni dinañ dégager mille milliards pour fexe ba xeex mbas mi jàppale population yi ci biir loolu nag ñu defar comité boo xam ne moom mooy xool ni ñuy séddalee loolu comité yooyu nag nga xam ne ñooy décidé fan la xaalis bi dem ñu ne léegi il faut ñu bootal leen comité boo xam ne mooy xool ndax xaalis bi yeggul ndax ñu ko dépensé noonu la ndax jàddul fu mu war a te jàddul wala ndax ñu war ni jot nañ et cetera bi ñu tax taxawalee comité boobu nag ñu ne ah pour ngir mu gën a leer nañ ko yaatal nañ ko yaatal ci ñoom nañ ko yaatal ci opposition mu ay parti politique d'opposition yu ci nekk. mais nañ ko yaatal ci député yi ñu jël ay député opposition ak ay député yu bokk ci majorité bi mais nañ ko yaatal ci institution yi ñu jël ay membres au conseil des collectivités territoriales dugal leen ci jël ay membres conseil économique et social dugal leen ci jël ay ñoo xamante ne bi euh, waa société civile lañ nga xam ne bokkuñ feen jël ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy syndicat yi jël association consommateur yi jëli tamit ñi nga xamante ne ñoo ñoo teewal administration bi ñooñu ñëpp nag nekk fanweeri président ne leen man mii kat maa leen tàng ngir ngeen saytul ma ginnaaw milliards yi nga xam ne moom laa ne nañ ko ci dugal ndax yegg na wala yeggul ndax ñi ci jot war nañ cee jot ndax ñi ci ñi ci war a jot ñëpp jot nañ ci ndax amul benn jafe-jafe ak nan fekkee ni ñu ko doxalee taxawul noonu nan lañ ko war a mën a doxalee pour que mu gën a jaar yoon ci biir loolu nag ñu commencé ñun tam wàcc ci terrain bi d' abord euh, bi commencé li nga xamante ne bi moom mooy aide alimentaire maanaam ndimbal yi nga xam ne mooy ceeb beeg diwlin yeeg ñoom it seen i mandat ñu wër les zones yëpp dem fu nekk xool wuquxaay yi gën ndaw yi am distribution ñu dem seeti ndax distribution bi jaar na yoon ndax ni ñu ko waxee ñoom la demee ndax retard yeeg lépp lépp ñu jël ko noté ko gis ko ko denc ko léegi nag ginnaaw loolu itam ñu ñëw seet ci jëwriñ mi nga xam ne ñooy ministre yi ñu dénk woon ay xaalis ne leen xaalis bi leen ko lii ñu dem seeti leen ñoom itamit kenn ko nekk ñëw na la boo dugal xaalis nga génne say facture génne say liste génne say commande génne say compte jébbal ñu ko ñu jël yëpp dem boole ak ñun suñu enquête de terrain pour xool est-ce que lii nga xam ne moom lañuy ñu jébbal ak li nga xam ne mooy dëgg bi benn la wala boobu nag biir loolu nag dañ nañ seeti ministère daanaka gouvernement bi xaaji gouvernement bi bu ëpp dañ nañu seeti leen seeti nañ ministère bi yore koom bi ministère bi yore xaar seeti bi nga xam ne moom lañ dem distribuer li nga xamante ni mooy aide alimentaire bi nañ ministère te nañ ministère bi nga xam ne mooy rek courant bi nañ seen énergie bi nga xam ne ni courant itam am na ci ay mais yu mayewoon ministère bi yore ndox mi seeti nañ ko ministère bi yore tourisme bi seeti nañ ko ministère bi yore transport ministère bi yore liggéey xëy mi ministère bi yore xale yi ministère bu xamante ne bi moom mooy ministère bi yore justice maanaam ministère buñ ne jox nañ ne dërëm ngir covid bi maanaam mu bokk ci mille milliards yi fekk na ne ministère culture seet ñu woon dem waxtaan ak ñoom ñu génne seeni facture rek seeni bagage yëpp jox ñu ñu jël ne leen nag jox jox leen yeneen document yoo xam ne bokk la gi ngeen ñu jox te tamit ñun tam dinañ dem encore di contrôler ci diggante li nga xam ne moom lañ ñu jox ak li nga xam ne moom lañ fekk ci terrain ndax benn la wala déet daal mooy sababu mission yi nga xam moom la war di def ci ministère ginnaaw bu ñu wàccee ci terrain bi euh, ginnaaw mission yooyu euh, ban taxaw seetlu ngeen am euh, si gestion bi de manière générale xaalis boobu di ñu ko doxalee ak ni ñu ko yoree waaw gestion bi fi ci gënoon a bari coow mooy li nga xam ne mooy distribution ceeb yi ak yaay ñooñu seen diwlin yeeg yooyu li waraloon coow li nag mooy day am ñoo xam ne dañ naan ah man waroon nañ maa bind wala man kat bokk naa ci liste bi waaye joxuñ ma wala ñu ne ah liste bi kat niñ ko defee fii ci suñ koñ am na ñoo xam ne nekkoon waroon nañ see nekk wala kii doon bind kat ñu doon bind liste bi niñ ko bindee jaarul yoon. wala ah ñun kat yaakaaroon nañ ne lii dañ ñuy jox mais ce que loolu état moo ko joxe wala est-ce que maire yi ñoo ko joxe et cetera et cetera donc programmation yooyu yëpp nag incha allah yi nga xamante ne bi jot nañ ko ci moment ba traité nañ ko yi nga xam ne itam ñu ngi koy jot ci leneen itamit ñu ngi koy traité donc li nga xam ne daal moom mooy liggéey bi daal mooy ne en permanence dañuy dem ci terrain bi. déglu population yi ñu ñuy remonter seen gis-gis ak li nga xam ne natt nañ ko ne jaar na yoon wala jaar pour que ñu ngi tam ñu toppatoo ko. lu aju ci wàllu distribution aide alimentaire bi sax euh, daanaka boobu mooy opération bi gën a bëri coow. dañ doon dégg ñu mm-hmm. bëri di wax ne euh, yëfi niñ ko doxalee leerul est-ce que yéen euh, boobu gis-gis ngeen am bi ngeen wàccee ci terrain bi. déedéet xam ne moom lañu gis mooy lépp loo xam ne liste la bu ñuy def dafa am ñaari façon list am na liste boo xam ne nguur gi moo ko joxe woon moom la ñuy wax registre national unique ak liste boo xam ne dañ ne comme liñ demande moo ëpp list bi gouvernement bi préparé woon war ngeen ko complété quartier bu nekk nag dafa war a am chef de village wala chef de quartier day daara représentant église bi représentant imam yi représentant jeunes yi directeur école et cetera et cetera ñooñu ñooy groupe wax parti bi ñoo fi gën a ñëw doole ñu dugal leen waaye léegi-léeg nag dañuy trouver par exemple dañu gisee ni am na téeméeri nit ñu ñëw doole te fekk ñoom seen carte bi ci manqué woon nekk juróom fukk donc dina am juróom fukk yoo xam ne tudd nañ te fekk na ndimbal bi du yegg fii ci ñoom million de ménages lañ ko déparé ba mbaaxi président yokk na ko un million cent mille ménages parce que dafa am ñu ngi woon ndax handicapé yi dañoo fàtte woon ndax ndimbal nekkul woon pour ay benn nit waaye pour ay ay ay njël la woon donc looloo taxoon ñu ku nekk yow bokkoo ci njël mooy ménage mooy nit ku yore ay nit di leen jox ñuy lekk loolu moo moo taxoon euh, binduñu woon handicapé en tant que personne léegi nag biñ demandé ñu ne nañ leen yokk ak yooyu ak ñi ñu fàtte woon moo tax euh, un million de ménages lañ def mais mujj nañ dem ba un million cent mille ménages donc loolu yëpp daal mooy yi nga xam ne gis nañ ko ci terrain bi yoo xam ne léegi-léeg nga gis koo xam ne bindoon nañ ko moment bañ koy bind fekk dafa néewoon doole waaye ci diggante bi affaire am baax na wala koo xam ne dafa faatu te nekk ci liste yi ba léegi wala koo xam ne nee nañ moom kat am na doomam am na jarabaatam am na te ñoom ñëpp a bokk kër et cetera yooyu itam ñu corriger ko donc daal ñu lañ doon li nga xamante ni bii moom mooy. distribution aide alimentaire bi ak retard bu rëy daal ak tamit dafa am côté yoo xam ne lu mel ni pat yi dafa manqué woon lool ndax ci usine bi ko daan jëndee fii ci biir réew bi liñ commandé ci moo ëpp lool li nga xam ne moom la mën a produire ci at mi yëpp donc ce loolu tam day indi yenn jafe-jafe. léegi ci ban diir euh, la seen mission bi di am euh, yéen waa force Covid 19. waa décret bi ñu taxawal dafa wax ne buñ ne mbas mi jeex na ñetti weer après. ci la suñ liggéey di jeex comme nag mbas mi jeexagul xamaguñ kañ lay jeex mënaguñoo wax ni suñ liggéey dina jeex quel jour tant que xamuñ mbas mi kañ lay jeex. bu mbas mi jeexee nag ñetti weer après ci la suñ liggéey di doog jeex. fi mu nekk nii yéen a ngi ci euh, seen rôle suivi maanaam topp yëf yi ni nu ko doxalee euh, bu weesoo pàcc bi xëy na yan jéego euh, ngeen war a tegaat ba tey jëm ci seen liggéey. waaw bu ñu li nga xam te moom la ñuy dañ koy tënk ci ab rapport jébbal ko président mi nga xam ne moo ñu ko santoon suñ ko jébbalee président nag dinañ tam informer population yi ndax bëggu mbir yi leer rek pour que dañ bëggu mu leer dinañ def tout pour ko mu leer ci population yi laaj bi euh, xëy na dafay jëm ci yow en tant que président ASCOSEN euh, ñu gis ne euh, ki nga xam ne mooy directeur du commerce intérieur bu ñu fal yàggul dara mi ngi tàmbalee wàcc ci terrain bi di xool boulangerie ak jaaykatu mburu yi nga xam ne sàmmantewuñu ak li ñu tëral ni charte jëm ci wàllu cet gi muy dal ci seen kaw di tëj ak def yëf loola yow en tant que kuy taxawu way jëfandikoo yi naka nga ko gisee waa d'abord damay féliciter directeur bu bees bi ndax xam naa ko ku nangoo liggéey la ku mën liggéey la ku gëm liggéeyam la itam ndax ñu féliciter nañ ko ci boor bu ne mu tontu ngir défendre consommateur yi réclamation yi ñuy jot yëpp dem na ba moom lañ ko daan jox directement te boobu nekkagul directeur kon li ko waral mooy gis nañ farlu ak engagement bi nga xam ne am na ko ci liggéey moo tax biñ ko falee itam bettuñu parce que xam nañ ne ku ko mérité la et que ku ku mën liggéey la ñun nag li ñuy def mooy ñaanal ko appuyer ko jàppale ko ndax dafa am lu ñuy wax autorité de l'État réew mi bokk na li ko tardeel dañuy jël ay décision te duñ ko appliquer bokk na ci li ko tardeel dañuy am ay loi te duñ ko appliquer yooyu yëpp nag moom li nga xam ne moom la commencé maanaam mu ne arrêté yi kat jëloon nañ ko informé woon nañ nit ñi bu baax informé nañ ñi nga xam ne ñoom la arrêté bi jëm ci ñoom ne leen lii ak lii ak lii lañ jël décision pour que mu jaar yoon boobu ba léegi kenn toppatoo ko moom mu ñëw toppatoo ko kon ñun dañ koy appuyer di ko ñaanal di ko jàppale ci zaahir ak ci baatin ngir mu gën a dem ci kanam parce que li nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom ñu ngi koy def mooy fexe da mbir yi jaaraat yoon. li muy def nii lan la ci war a nekk taxawaayu way jëfandikoo yi parce que souvent tamit dañuy dégg ngeen di wax ne consommateurs yi taxawaay bi war amuñu ko euh, ci yenn euh, loi ak règlement yi nga xam ne dañ koy tëral te war koo doxal lii euh, directeur du commerce bu bees bi di def pour yow ban rôle la ci consommateur yooyu war a jouer. premier rôle mooy képp koo xam ne gis nga ne lii yoon tere na ko boo gisee ñu koy def fexeel ba signaler ko direction du commerce intérieur ndax ñoom itam ñu mën a jëf seen liggéey. ndax comme mënuñoo nekk fu ne il faut que population yi jàppale leen ñun sax am na idée boo xam ne yàgg nañ koo def yàgg nañ koo wax ne dañ bëggoon ñu créer ay volontaires de la consommation maanaam ay nit ñoo xam ne ay association consommateur la ñu nekk ñu defal leen formation ñuy jàppale ñi nga xam ne comme rek ñu ngay gis ñuy def euh, police de proximité yi ñu jàppale policiers yi bu ko defee nekk ay jeunes yoo xam ne dinañ am xëy di jàppale waa contrôle économique waa service du commerce intérieur ñu ñëpp pour que liggéey bi gën a jaar yoon suñ gisee koo xam ne ci benn quartier ñu def naka sudul noonu ñu dem intervenir wax ko signaler ko gars yi ñëw euh, jël ko en charge waaw te doon loolu yëpp nag dinañ ko proposer ndax xam nañ ne koo xam ne la am na ubbeeku te bëgg na liggéey kon nag il ñu jàppale ko donc ñun association consommateur yi loolu la ñu wax ni nañ ko jàppale beneen bi tamit mooy ne consommateur bu ci nekk tamit soo gisee sa boutique di def loo xam ne jaarul nga woote bu dee Dakar la ci huit cent vingt et un douze dix huit cent trois huit cent vingt un douze dix huit mooy service régional du commerce su ko defee ña fa nekk dinañ ñëw jël seeni matuwaay pour que loolu dakk jërëjëf Momar Ndao euh, porte-parole comité de suivi force Covid 19 nekk itam président ASCOSEN amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi. jërëjëf tey bi.